نورنا من نوره نيل من الله من الوعي نورنا من نوره bu ko defee alxaaji maam góor géey bismillah mun tur danga may jox ñaar ñett ñeent da koy defar ka yàqu ba samarina ku sopp Seydina Muhammad laqad saada man yaate kama saada man mada ñoy ma kayaleen yoon xayrul bari tasrif al xalq ku sopp yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen bal ma nag sama patron mi ngi ne waaw su ñun di jaay xalifa Seck li may wax moom ma ko jàngal ak sëriñ Maam Njaay mi ngi toog ngeen jéggal ma rek yaa rasuulallah ku sopp sayyiduna Muhammad sallallahu bi wa ida sakan wa fika sumti kullo وإذا نطقت فماد عليك ينتل ممدو وإذا سمعت ينتمي فأنت قولا طيبا وإذا نظرت فما أرى إلا كممر الأمين يويا يا مالكي كن سافي الخديم إني فقير في الورى لهناك كبك يا رسول الله لقصار من ياتي كما سعد من مدى جل مكيال يا رسول الله جل مكيال جل سقف يا رسول الله إنما دفني أنت مسمع كل فضل فما تصدر إلى دوك الأدواء لك ذات العلوم من خالم الخيب ومن خال آدم الأسماء yow yeneen lam tasal musoo dañ di woote déedéet musoo dañ di gindee si damay rek di tuxtaaro waati wal abbaawu la man yaate mada jol makiya leen jëf sallallahu alayhi wa sallam suuf yaa rasulallah na jóg taxaw na ma man la waaye jóg leen taxaw jóg taxaw ca kaw waaye jóg leen taxaw ca kaw Mouhamadou Lamine bëgg dem aljana ki may bëgg way sopp dem aljana ki may bëgg a way yaakaar demal jana laaj bëy di ki may bëgg a way dem aljana ki moom nabi ki may bëgg a way tagg dem ku ko tuddee doom fi ab yaram haram na sawara ku sopp yaa rasuulallah dama defal ni ngir yonen bi Mamadou Lamine alaaj Mame Diarra turandoo Mustafa gisul baayam ba tey jii déedéet yàggul ak yaayam mooy lay dëgg la noon ya naan day ji baraan daanar ñu bàyyi sunu cosaan seeti leneen lu dul xërëm sopp yaa rasuulallaay xëy feeñu musa xarub dënnam raxase ko samdam tabal sa laar tabal sa ngam kase naan kana bi wooteel wooteel ndax ñu gëm bëgg yaa rasulallah innan ko teel Mustafa ya wooteel wooteel ndax ñu gëm ñun teel Mamadu bi alhamdulillahi lazi bi jalaalihi ayalaana ma wadina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yow yonent bi fa أحسن الخالقين خلق العباد بحروف محمد وحسن من يا مصطفى ترم لبخ يلا لا من وقت مام دو ويس مكو كي باخنا sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii ku fi jaay taar ba sa dem ci sayyiduna muhammad moom mi taaru ba yàlla xool ko wàcce suuratu yaasin sayyiduna muhammad yaa jar di way suba ak ca man de gëm yaa jar di jaay di jëm càmmañ wa ndey joor Mamadou Lamine sallallahu alayhi wa sallam bariat asraf al khalqi wa azimim wa jàng fa yonent bi laa tulum ni fa innani fi xuyaami law misli zulma ladal xolaay yonent bi sayyid ar rusul aywa xaatimil anbiyaay sunu waajo musa wallaahi sofatal afyaay yow yonent bi mafza unnaas inna yowma zihaami wasawil wasaati yowma jazaay musa fa salaatun min al ilaahi taala wasala على آلك الكرام والثابت لك داعي الورى إلى ذي العلا ينتمي اسعدوا لي كسب دام باخ مالك لخم عبدنا اسعدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء يوم ينتمي فاقبلوني أيوة محبتي يا سمالي وملالي في سدتي ورخاي يا وين فاقبلوا لي محبتي يا سمالي وملالي في سدتي ورخاي وربي ما عندي رجاي سواكم waa bil faydi xaatimil awliyaa ku sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kulun mustawa mu romb soxna si si biir xunóor si booru teen ba xalaat ba yooy nabi moo ko jàngal way si biiru man dinam toog di jooy ngir doom root sa biir jëmmam way ba kala jàngal way jox la ko da wàcc nga masha allah maam góor waaw góor yonent bi mu romb soxna si si biir masaw ne maam njaay ne bu gàmmu gi jeexee nga jël mbubb mi am na beneen mbubb ci oto yàkkamti woo nga ñëw kër gi suba mbubb mi yaa ko moom ah, kon man fa laa fa laa ko yemale waaw fa laa koy yemale ndax maam njaay mii jox maam góor tan mam Ndiaye mii mam góor loolu du ko wax ndax su ko waxee dañuy foog ne leneen la waaye ñun ñuy ànd ak moom te fekkee démb ñoo ko koy waxal mam Ndiaye mii moo jàngal mam góor Gueye mii way suñu di jaay suñu di jaay suñu di jaay sekk mële